أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله مبكو سنغال سنغال ينك تبير ريومي أك ينك تبتم ريو من لسن مبكو طالب إمام درامي ما نيوات أجيين غناو بمالي نيو نيو كليفة ديني أكليفة آدهي su ma nee kilifa diine yi nag diine yi nekk ci réew mi yépp moo xam diine lislaam la walla diine christianisme ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu boroom xam-xam yi maanaam ulama yi ak imam yi chef de quartier yi mboolem fu sénégalais nekk rek ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi nag xam ngeen ni contexte bii senegal tollu tey jàpp naa ni ñi war a taxaw ci kanamu sénégalais yi mooy ñi nga xam ni réew mi rek moo leen tax di wax mooy ñi nga xam ni ñoom maanaam du ñu far te du ñu parparloo waaw li sama sëriñ Cheikh Hadji Abdou Aziz baax daan wax yàlla nañu ko yàlla fayal parce que contexte yi bu ñu ci nekkee suñu xel ak suñu xol yépp daf koy daj waaw yàlla nañu ko yàlla fayal ndax taxawaayam moy rew day tollu fo xamni ñi ñi tuddé ay élites les élites bu ñu les élites moy les intellectuels intellectuels yi ñaar ñoo fi nek moy le pouvoir temporel et spirituel le pouvoir temporel ak spirituel Nous, nous ñoo ëpp responsabilité ci am rew manam bu temporel bi. mooy classe politique bi classe politique bi bu ñu ko waxee ñii opposé wu wala ñi yar nguur waaye bu ñu ne pouvoir spirituel bi nag mooy sëriñ si waaw bu dee fii Sénégal mën nañ wax ni confrérie yi bu ñu nee sëriñ si nag waxuma sëriñ comme ni ko Sénégal xamee mais képp kuy boroom xam-xam moo xam imam nga walla diine nga xam diine ju mu mën a nekk. yow da war a yëkkati sa kàddu ci jamono yi parce que ñi jiitu woon nekkoon suñuy kilifa diine ku mel ni sëñ Abdou Lahad Mbacké contexte bii réew mu toll bu fi bu fi nekkoon de dina yëkkati kàddoom mbokk yi bu ñu kenn gëmloo wala nga bëgg a def suñu bopp naan ñu sëriñ day wax ci suuf loolu man kenn mënu koo def sama bopp parce que ñun li ñuy nekk nekk xale am na ñaari xalifa yoo xam ne dund nañoo ñoom fii ci réew mi muy sëñ Abdou Lahad ak Cheikh El Hadj bu musaana am lu ko naqari ci réew mi loo xam ne gis na ni fa jëmee réew mi fitna la da daan woo rajo Sénégal woote fii ci zawiya bi waxtaan ak waa réew mi kenn ku ci nekk mu rappelé la en l'ordre sëñ Abdou bu ngeen delloo ci ay archives yàgg naa yëkkati woo rajo Sénégal wax wax ak nguur gi. ni leen fi ngeen teg seen tànk du foofu wala fi ngeen ko teg foofu la parce que mbokk yi nul n'est parfait ku mat sëkk amul nit ku mat sëkk amul nit nit la rek mën naa juum te yow mi nekk ci biti yow dangay am gis-gis boo xam ni moom mi nekk ci biir du ko am waaw kon kilifa diine yi tey fi réew mi toll naam am nañ ay xibaar yu wane ni ñu ngi ciy dox pour dalal réew mi waaye nag dox bi dafa war a gën a gaaw dox bi warul nekk le médecin après la mort mbokk yi parce que nag li fi jaar ñun ñëpp xam nañ mbirum Karim Wade le médecin après la mort la mbirum xalifa Sall le médecin après la mort la ginnaaw bi ñu ko tëjee ci kaso bi ba noppi ba mu def fa ay at ñu xañ ko. mu bokk nekk candidat gannaaw bi ci lañ def médiation bi ñu ngi sant suñu waajur woowu suñu kilifa googu seriñ mun Mountakha ñaanal ko yàlla dëgëral ko mu def ci médiation bala ci am am ci waaye il faut ñu comprendre ñun ci contexte bi ñuy waxee contexte bi ñuy waxee mooy démb ku xool mbooloo mi nga xam ni ñoo topp Ousmane Sonko parce que wolof nee na lii ay di jàmbat tey Ousmane Sonko mooy ay mooy jàmbat waaw mbolo mi nga xamni mo top dembu Ousmane Sonko ci université ta ku xam université xamni ni la bo xamni ña fa nek ay boromi xam-xam lañ duñ ay jahil manam duñ top nit ni rek parce que dañ lay top dañ leena jox xaalis wala da nga leen a mais dañuy top nit parce que dañoo am ci mom yaakar loolu képp ku ci deful taxaw setlu yow sa analyse da koy faussé tey bi ñu gisee ci journaux yi gis nañ journaux yu bari ñu tiitre lan moo tax Ousmane Sonko di dem université man de li ma ci gëm di ko wax ak sénégalais yi damay samp laaj di wax ni est-ce que dafa am benn loi ci réew mi buy tere nit ki dem université rawatina koo xam ni ab candidat potentiel la pour deux mille vingt quatre loolu sénégalais yëpp dëppoo nañ ni amul benn loi bu koy tere kon journaliste yi maa ngi leen di woowaat ci éthique ak morale ak déontologie parce que yéen loolu moo war a nekk seen taxawaay tey bu ñu def manipulation manipulation warul am ci côté Ousmane Sonko waaye manipulation warul am ci presse bi manipulation warul am ci pouvoir bi tey mbir mi dem na ci loxo yoon nañu souhaité yoon boo xam ni bu doxalee ba tranché ba pare xelu sénégalais yépp dina dal ñun loolu la ñuy wax en tant que ay nitu diine mais loolu la ñuy wax mais en tant que ay citoyen sénégalais mbokk yi parce que mbokk yi nit bala ngaa nekk kilifa diine wala ngay nekk kilifa aada citoyen nga d'abord la citoyenneté te mbokk yi réew mi jàmm ji ñu am àdduna bi yépp dañ ñu cee ñee aduna bi yeb dañ ñoo ñee ci stabilité bi Sénégal am té lolu ñun ñi def le monde arabe xam nañ ci dara jamm joju nak dañoo wara fexé bam sax ci réew mi mbokk jamm joju nak likoy saxal ci réew mi benn condition rek la du lu ñuy wax manam jamm du lu ñuy wax mais lu ñuy dund la wa ma bëgg ñu déglonté bu baax parce que réew mi dafa dafa naqaree waxé fimné rawati na ci contexte bi amna ño xamni ñoom li ñuy xaar rek mooy nit ku wax ba ñu diaboliser la waaye ñun ragaluñu diabolisation parce que Sénégal moo ñu jaral loolu ñun Sénégal dafa am lu mu ñu defal kon buñ tollee ci réew mi contexte bi ñun diabolisation wala dëkkal ñu fu ñu dëkkul warul tere ñu wax li ñu gëm li ñu gëm di ko wax pour histoire di ko wax pour ëllëg bu ñuy bindaat histoire ñu di waxoon nañ ko

sa xel dina ci dal ñu baña influencer justice bi ci ñaari côté yépp nak mo xam ci côté Ousmane Sonko wala ci côté pouvoir bi donte nak wolof amna lu mu wax wolof neena ku ndobin ray sa mam Khalifasal, gisé lu ñuul da ngay daw gisoon nañ fi mbirum Karim wad gisoon nañ fi mbirum Khalifa Sall te bi yoon ñu ngi am yaakar bu reey ni du démé non parce que buñu naxanté ku japp ni Ousmane Sonko Khalifa Sall la wala Karim wad, kon yow amo information Ousmane Sonko ay ndaw ñoo and ak mom dafa am idéologie bu mu jaay Sénégalais yi waaw ni Macky Sall bi mu fi ñëwee amon na idéologie parce que yoonu yokkute la jaay Sénégalais ba Sénégalais fal ko ci tay mu nekk président de la République ñu joxaat ko benen mandat mu indi plan Sénégal émergence Sénégalais nangul ko ko Ousmane Sonko tamit di ab sénégalais. di joolaa piir mbokk yi di africain pire boo xam ne bu waxee rek di nga xam ni kii di wax réew mi moo ko tax di wax parce que ñun loolu lañ gis ci moom loolu rek lañ mën a seede te alquran dafa am lu mu ñu waxoon wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu yàlla nee na bu leen di nëbb seede bu leen di nëbb seede rawatina seede boo xam ni xam ngeen ko wa ma shahidna illa bi ma allimna man Ousmane Sonko fenn encore une fois bokkuma ci parteem musuma koo gis mais li muy wax maa ngi koy dégg ba mu déparé ba tey panafricanisme lay woote ba mu déparé ba tey idéologie lay woote kon képp ku jàpp ni diabolisation mooy tax sénégalais yi bàyyi Ousmane Sonko xamoo li xew waaw man li ma gëm di ko wax fii devant les caméras nañu fexe ba justice dess ci réew parce que mbokk justice moy garantie démocratie bo déggé alquran di wax ni ya ayuha alladina amanu kunu khawamin bil qist shuhada lillah walaw ala anfusikum aw il walidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima yàlla mu ngi wax jullit ñi mu ne oh les croyants Observez strictement la justice. Soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fils, contre vous-même, contre vos pères et vos mères et proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. qui justice moi, garantie stabilité La justice moi, tax sécurité parce que bis bo, dañ lay jaay doole ci kanamu justice dootoo respecter justice kon nañu fexe ba crise de confiance ba ñu am ci sunu justice te nag mbokk yi ñun xam nañ fi ay magistrats yu am courage ay magistrats yoo xam ne réew mi rek leen ñor kenn mënu leen a jëme fenn kon ñu ngi ñaan notre élite yi taxaw parce que procès bi ku jàpp ni ku ci bëgg génne politique mooy da ngaa bëgg a nax sénégalais yi procès bi procès politique la. buñ ni procès privé la gëmuma loolu parce que Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui ci réew mi lu tax ma wax loolu c'est lui le chef de l'opposition sénégalaise kooku bu xasee ba am problème kum ko mën a amal rek politique da ci dugg ñun ci réew mi lañ nekk di wax nag fi may daanelee mooy opposition képp ku taxaw pour laaj réew waroo ragal kaso parce que kaso ay jinne nekkuñu fa ay malaayika nekkuñu fa ay nit rek a fa nekk Ablaye Wade tuumaal nañ ko fi rey nit affaire maître sëy loolu sénégal yi dañoo gaaw a fàtte mais bu leen ko fàtte Ablaye Wade tuumaal nañ ko fi rey nit te mujj naa jël réew mi kon li ñuy wax pour daaneel ñun duñ ay activiste na leer ñun duñ ay partisan Ousmane Sonko nii Macky Sall ñun ay partisan Sénégal lañ li li sénégalais yi di wax nag naan nitu diine yi waruñoo jël position loolu wax loolu waxi naa feq la mbokk ñun lislaam jàngaluñu loolu lislaam lim ñu jàngal te suñ mag ñi ñu jàngee ko ci ñoom ku mel ni alaaji Abdou des Dabakh sëriñ Abdou Lahat ñooñu laay tudd dañ daan jël position buñ gisee dëgg tey fi dëgg nekk mooy sénégalais yépp seen xel dalul ci ni dañoo bëgg a xañ Ousmane Sonko mu bokk man de loolu laa jàpp ba koroog may gis le contraire loolu piège boobu nag jàpp naa ne nguur gi waru cee daanu parce que tey bu ñu jàppee Ousmane Sonko rek mooy dañ naan wokkatu bu dajee gersu la waaw mais bu ñu fexee ba bàyyi ko mu ñibbi këram entendre ko mu ñibbi këram dina am beneen xar kanam ci wàllu démocratie bu mu joxaat réew mi kon ñi doon wax naan Macky Sall dafa ragal adversité dinañ tëj seen gémmi kon mbokk yi ñu ngi wax ni nañu jiital intérêt Sénégal le Sénégal d'abord Sénégal ku fi mën a toog muy Macky Sall dafay jóge bis te dañuy bindaat histoire réew mi Ousmane Sonko moom mi toogagu fi te xamaguñu lu muy indi te bis bu fi toogee critique yi ñuy def dañuy continuer di ko def parce que réew day am lu ñu tuddee contre pouvoir contre pouvoir fa lay daanelee république indiwu ko fi fi la ko Sénégal depuis la révolution torodo ca Thierno al le almaami Abdou 1776 ci lañu amoon lu contre-pouvoir ñu am ñuy fal ci ay carte xeyna booba carte amagul waaye ni ñu doon falee mooy dañuy seet borom xam-xam ñu fal ba def ay recommandation bu ngeen yi yu am solo la buñ ci duggé day gudd waye pour gattal rek kon contre pouvoir république daf ko fee fek kon république dafa wara a accompagner lool waye république warul ñew fexé bu ku taxaw ci kanamu sénégalais yi nit ñi am ci yow yaakar ñu fexé ba tag la lo xamni ni bok loolu amul Ben sénégalais bu honnête gëm yalla gëm ni da ngay dugg bammel bo xamni ni d'accord nga ci waxuma nag kuy wax pour sa poos parce que réew mi am na ñoom dañuy wax pour seen poos ñun nag alhamdulilah waxuñu pour poos pour pour sunu poos parce que lu nit yor rek ñu ngi lay wax ni téye ko ñun ñu ngi ci daara ji te gëm nañ ni daara ji mu ngi ñuy dundal alhamdulilah yàlla bàyyiwuñ kon nañu jiital intérêt réew mi fi may daanelee nag encore une fois mooy mbiru Moustapha Diakhaté xam ngeen ni man bokk naa ci sénégalais yi taxawoon jël position. la ma ca wax mu ngi ca internet bi ñëpp dégg nañ ko waaye bu ñu dégloo élément Moustapha Diakhaté bi ñu soog a bu ñu ko dégloo ba noppi dinañ ci joxe sunu xalaat kon ñu déglu élément bi bu ñu ñëwee joxe ci sunu xalaat. xam nga sëñ Modou wax dëgg yàlla yàgg na maa yëkkati kàddu se mm-hmm. kàddu ga di ci sàkku ci yàlla mu di ma dimbali muy nekk dëgg di ma dimbali ma di ko wax ci teggin di ma dimbali ma di ma di ko am njariñ jàpp naa ne bu may ba ma tàmbalee di yëkkati kàddoog léegi waxaguma fi aw tooxi doon na mhm. maanaam waxaguma fi nit ñi teg seen loxo seen gimi lii mi ngi door am nañu jàpp ne man de damaa jàpp ne man damaa juum mhm. ñi nga xam ne ñoom laa ko séqit nag nañu jàpp ne damaa juum te nag juum moom ku dul yàlla subhaanahu wa taala rek mën na laa daal mhm. kon nag ginnaaw juum naa maa ngi jéggalu yàlla subhanahu wa taala ki juumtali mhm. ginnaaw juum naa loo xam ne jullit yi naqari na maa ngi leen di balu ak ñoom jullit yi bi ci mhm. maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun jullit yépp mu sàmm nu ban mucc ci juum bu loolu mbokk yi dégg ngeen Moustapha Diakhaté dafa reconnaître erreur am te loolu am solo la dafa reconnaître ni moom dafa def erreur loolu nag mooy jullit jullit wala nit sax wax nit boo defee erreur da ngay reconnaître ni def nga erreur loolu grandeur la nit ku mag mooy def loolu parce que tubaab day wax ni nul n'est parfait ku mat sëkk amul waaw arab di wax ni alkamaalu lillah yàlla rek moo mat arab wax na ni summiyal insaanu ala kasrati nisyaanihi nit dañ koo bind ci gaaw a fàtte man de lépp lu nekkoon ci man bàyyi naa ko te maa ngi ñaan jullit ñi ak umma bi yépp ñu bàyyi parce que nag ñun ay jullit lañ islam diine tolérance la islam du diine fitna encore une fois diine tolérance la diine paix la diine bu nit ku reconnaître erreuram nga bal loolu la ñu yonent bi sallam jàngal waaye nag islam tamit diine dëgg la boo gisee dëgg nga wax ko fa nga ko war a waxe ki nga ko waxal bu demee ba reconnaître erreuram li l'islam wax mooy teg ko ci suuf kon Moustapha Diakhaté amoon noonu ci réew mi parce que fii kenn du fi bañ kenn ñun amuñu amuñu ku ñuy bañ wala ku ñuy contre waaye nag yonent bi du ku ñuy fooy waaw bu la neexee nga politique bu la neexee nga ànd ak Marème Faye Sall dégg nañ sax ci journaux yi ñu ni yaa doon jottalil Marème fay Sall am nga ci droit waaw te pourtant da nga doon taxaw ci tele bi ni ni ni bàyyi nga Macky Sall yooyu yëpp ay contradiction la mais yooyu yëpp am ci droit mais bàyyi fi yonent bi te nga bàyyi ñun imaam yi xam ne ñun ni ñu gisee nii bàyyee ñu noonu parce que ñun ñu rek di di wax waaw ci réew mi lañ dëkk bokk ci réew mi te fas yéene di wax pour réew mi insha allahu rabbi ñu ngi nuyu nuyuwaat kilifa diine yépp commencé ko ci sëriñ Muntaxa sëriñ Babacar Sy Mansour sëriñ Mahi ñas di nuyu tamit sama xalifa sëriñ maam Abdou Dramé ci àndulaay maa ngi koy nuyu ak mbooleem xalifa généraux yi di nuyu eglise bi di wax ni nañu taxaw pour réew mi bañ a jiital intérêt kenn nañ jiital intérêt Sénégal waaw mbiru mbiru vaccin yi dinañ ci ñëw dinañ ko defal vidéo spéciale incha allah kon in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh